dañ nan ci li Aïda Mbodj wax ba kéro muy indi preuve mhm. wala muy indi nit ñi parce que aussi un euh, populisme bi ñu nekkee et je pense que mom kilifa bi mu warona a doon moom la doonu déjà ah euh, moo tax. Euh, si naka bu ko mënoon na koo lijjanti. man mm. pour man wax. Mm. bu leen ñu bàyyi di génn rek di wax sénégalais pour sénégalais après ku ci nekk naan waaw ñoom ñu ngi def seen liggéey yi ñuy def ñun dofuñu ci ne jàppuñu. Mm-hmm. bu nekkee loolu am na ñi ko def nañu génnee ñi ko def ñu ne ñii ñoo ko def. Mm. ba pare dañu indi ay preuve boo demee bay accuser benn société bu benn nit nekkoon. Mm-hmm. da ngay indaale ay preuve nga teg ko. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. ban preuve la am su ci tuddee est-ce que tudd na tur. est que wax na nit. man wax boobu doyagu ma. doy la. waxuma ne am na. Mm. waxuma ne amul. Mm-hmm. mais man doyagu ma. Mm-hmm. man pour man bés bu demee bay ubbi gémminam di wax. Mm-hmm. daf ci war boole ne. nday sawkat def na nangam joxe na un million signé na un million nekk te deux millions la jox kooku des lu ne am na fi mën na nekk. parce li tax mën na nekk mën naa la woo ne la kaay. Mm. léegi yow dama naan la dama lay lebal un million léegi deux deux deux cent rek nga ciy moom loolu mooy yow de 1 million bi ñu génnee pour man maa ko génnee du woon pour yow mais comme que yow yaa ma defal business bi yow dama laa jox dama la cee jox deux cent mm-hmm. da ngay leb da ngay war a fay. moom laa lay wax xëy na après moom day fay loolu pour man wax ji xam nga man dafa am yoo xam ne wax yu bëri la. Ah, su nekkee signé nañ ne xaaral xaaral ah, ah, madame ñaw xam nga tey bu nekkee signé nañ xaalis bi génn na. Hmm. waa léegi war naa fay wala waruma fay. man pour man jaru xuloo jaru xeex. Ah, mais ñi nga xamante ne boobu ba tey nee na am na ay dette yu nga xamante ne mu ngi fa toog ñu gis pa mu gis euh, document yi ni ñii dañoo war a fay te seen délai passé na bu yàgg ba jàll. ñu leen di interpellé ñu ne leen euh, ñiñ ko lebaloon euh, dee nañ ci géej gi c' est pas une raison. ah léegi buñ deewee ci géej bi nu ko nit di def. ana garantie ça veut dire kenn ni kon ni ñu doon lebalaatee jaar woon yoon. xam na daal lu ma la bëgg a wax. Hmm. Aïda Mbodj occupé na ay secteurs yu bëree bëri ca jamonoy. laay waat mm. mën naa waat yàlla teg sama loxo ci kaame buñ ko limbatoon fekk fu lu raw lii muy wax ah ci dëkk bi lañ dëkk doo fu ñu jëne jàpp ñu te nga jàpp ne moom it day luubal nañu bàyyi limbat yi ah, koo lëmba koo gis ko moo tax ma ah, ne la ah, moom wax ji dafa leer wax ji dafa leer nee nañ ñu ko lebaloon dee nañ ci géej gi lu ci nit mën non ñi ne dañoo wax ni dee nañu si géej gi noonu la c'est pas une raison moo ko ko wax moom si si xalaat nag man damaa yor jikkoy man damaa yor jikkoy tubaab xam man lu ma xam man damaa bëgg boo may wax bul ma ne am naag mhm. laal nañ fii indi mhm. say preuve teg mhm. ne Ndeye Sow mii moo jël un million jël deux cent mille yi jox ko madame Niang jël li ci des dama ko ci poosam indi ma ay preuve parce que dara mën na am te du am preuve voilà sa baat ak sama baat la rek mais Aïda ak niñ ko xamee est que sañ na wax man Aïda mii ma gis bi ma xamoon Aïda Mbodj mii ma xam jàppale Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko ne ne Ousmane Sonko ne Adji Sarr xam nañ ko naa nga mën naa nga wax ci Adji Sarr mhm. te war a te asi Adji Sarr maaseeg sëtam waxuma la doomam mm. Ousmane Sonko maaseeg doomam mm. Ousmane Sonko def lu neexul yàlla lu yàlla santaanewul yonente bi san diglewu ko mm-hmm. moom mu far ko boot ko roggante ko nekk ndayam mm-hmm. te xam na ne Ousmane Sonko soxlaw ko comme nday nday Ousmane Sonko nga fay ca euh, dëkk bee toog yor kurusam di ñaanal doomam la ma waxoon laay tax soxlawu ko kon non soxlawu naa quand même soxlawu sérieux ah, man na ko yaay mais man mën na ko yaay mais li li yaa moom moom moom li mu nangoo def moom Ousmane Sonko ndayee ma koy eh, xelal moom li mu nangoo def ndayu Ousmane Sonko du ko def ci mm. àdduna mm. maire boobu ma gis du nangoo def li ay dëmbooj moomu sal boulot bi muy def ah moo tax man la lu ñu waaw moo tax man la kii dafa dafa dafa dafa jël dafa opté à ce que mu nekk koo xamante day servir peuple am dina dégg lu nekk dina gis lu nekk te da koy affronter. am na question wala. déedéet. amul beneen question. déedéet. ay la boo jëma du tardé. ah. xam nga tamit yéen da ngeen fee toogoon def lu leen neex di lebal ñii di ñàkk lebal ñii dafa am benn ki nga xamante eh, ne moom mooy benn benn benn intervenant la. léeg-léeg sax dañ koy gis ci parfois si euh, yenn site muy muy expliquer di wax mu wax ben wax bo xamantene ñenn ci journaliste dañ ko dañ ci dañ dañuy appuyer si lolu ne effectivement c'est vrai am nañ ci ay raison kay mm-hmm. ñi nga xamantene ñoo fi nekkoon mm-hmm. muy waa benn bokk yaakaar dañuy ñëw ñu nga wara a leb duñu lebal n'importe qui mm-hmm. ñi nga xamantene seen loxo jotu seen ginnaaw lañu war a lebal mais da ngay ñëw buñ la bëggee lebal yow mi am am ba pare sax nga xamante ne xaalis da nga koy soxla amoo business plan amoo benn projet ni rien du tout ndax c'est de obligation nga nga nga nga nga bind sa projet wala si si fan nga koy dugal ak et tout. Mhm. da ngay ñëw ne leen kat lii ak lii ak lii laa soxla temps de front ñu ne la ok business la business ngeen ko doon def. <laughs> bu fekkee jigéen nga mhm. xees nga rafet nga waaw il faut que ñu dem Dubaï hôtel maa ne kay melul dara maa gën a ñaaw si dëkk bi te dangu naa ko <laughs> il faut dañoo dem hôtel nangam boo paree jox la nga encaissé nga seey ma c'est lu may sekk ak yow. bon man dëgg loolu dëgg. xam man boo ma bëggee wax ñi nga mm-hmm. ci mm-hmm. le président le le le ministre de l'agriculture. Mm. il a un verger dégg mm. voilà si lan la profité ñu est-ce que amelut état bi c'est une question que je pose mm. est-ce qu'il ne doit pas de l'argent à lu et ay BND wala Yenen ak am mm. je pense qu'il en a profité est-ce que mm. fay encore ko pourtant mënal na boppam lu tax bañ ko koy jox neewu leen bu leen ma ko jox mënal naa sama bopp te moom moo ko dem lebe ci ah waaw li kii wax rek laa wax de dañuy lebal borom barke yi bu nekkee moom borom barke la woon ba tax mu ubbi verger mm-hmm. wala ay toolam lu mu mënti doon mm-hmm. kon lu tax mu profité woon ci xaalis boobu mm-hmm. dem di def ji ay prêt ak am boobu fan la tollu nañ bëgg nañ mu leeral ñu bëgg nañ mu leeral ñu rek ban la ci leboon parce que ñu ngi ciy tudd ñu ngi koy tudd ci leb yu bëri est-ce que fay bi jeex na ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon pour man c'est pas empêché ñi dem dem dañoo war a xam ne wër wërsëg yamu xam man sama genre gi man sonaluma sama bopp dem di lebi ji man bu ma bor sax daf um mm. ñuy duñu am mm-hmm. ñuy ji am garantie bi mm-hmm. amna ñuy lebi ji bu ñu projet ba ñu parce que la plupart ils te disent que xaalisu état la bu la ko amna ñu koy mais il faut qu'on arrête aussi de dire que ñi fi wala parce que chaque fois ben secteur

yàlla jërëjëf ñun loolu en xam nañ si ay nit yi nga xamante ne soxla woon nañ ko aajo woon nañ ko ba nii may wax ak yow mënuñoo fexe ba am benn réponse kenn lebalu leen si dërëm ñuy lebal ay nit ñoo xamante ne diw xamoon naa ko xam naa ko fii donc xaama dem mu dimbale ma ngir ñu lebal am nañ nañ nee ñu ñu lebal nana maa bëgg preuve am nañ preuve nañ dañoo gis ne man mii gis naa ko ñoo xamante ne dañuy xam ay nit foofu sa deer moo moo tax ñu bénéficier wu si si si si si si prêt yooyu noonu ñi nga xamante ne citoyen lam daal di sama genre xamuñu kenn buñ demee duñ leen lebal mais c'est pas normal. ay ah, Aïda Mbodj na dindi loolu man dinaa. loolu de dinaa dem lebi ji xool. ah loolu loolu dafay jeex. kañ ngay dem lebi ji fi mu ne nii non man lebi jiw ma wax dëgg ne yàlla. ah nañ dem ñu lebi ji wax dëgg ne aw ma benn soxla bu may lebee si bari wax dëgg ne ah, yàlla loolu ah, moom soxlaa ma ko dinaa créer benn soxla lebi ji hmm. nag waaw. en tout cas jamono ji loolu dina jeex te ñi nga xamante ne dañoo leboon. na ngeen xam ne da ngeen di fay ndax jub jubal jubbanti nag la ñu woote ak leeral non jub jubal jubbanti moom gisuma ba pare goqe comme niñ ko ni niñ koy waxee si wolof mi nga xam ne damaa yàkkamte Ousmane Diomaye dafa war dafa xew te dafa war a Diomaye Ousmane Sonko lu muy goqi non Diomaye mooy goqi Ousmane Sonko watti waat ko rébuté ko bàyyi ko génne ko gouvernement non na non pourquoi non parce que defu fi dara amul ñu benn njëriñ. ah mais si laps de temps bi yow wàññi na prix jamono de temps bi da ko dabaale ci avant muy dugg ba léegi loolu mooy dox ci moom ba tey. Hmm. que ce soit dans l' international xanaa seetaan nga vidéo Burkina be Burkina Faso bi. bien sûr. gis nga ñuy tëkku Diomaye ak Ousmane Sonko. mais ñoom ñoom bi teg ko mu gën a neex. ñoom lu leen si. ah ah da koy laaj sa président nag ak sa premier ministre nga koy laaj. Hmm. ñom lan lañu wax ak ñooñu lan lañu ñu ak ñoom biñu ñuy ut réew mi lan lañ leen promettre ba ñooñu mm. di leen wané né da ngeen wara euh, nek ay panafricain de gauche mm. da ngeen wara wax ci suñu da ngeen wara dox ci suñu waaw ñun les burkinabé mm. da ngeen wara dox ci waaw Afrique bi sous région bi alors que ñun musuñu am problème yu melni mm-hmm. le Sénégal n'a jamais connu ça cette humiliation et tu penses que le, c'est c'est naturel non c'est pas naturel parce que amna lu jaar sen diggante ak ñom hmm. c'est pas du tout naturel amul ah, kenn ku nekk ci souf non du tout attends. Diomaye demu fa kéro ah mais je demande juste c'est juste. amul sens. ñoo hmm. ñooñu ñak yoy ay dof lañ ñooñu xamuñu yoy de ay ni ni moo tax ñuy wër gaay hmm. ñom ñoo waxanté ak ñom ñom ñoo am lu ñu jëflante ak ñoom. bu ñu toogee di leen wax naan leen da ngeen a da ngeen a bukki sangoo deru béy ngeen. parce que loolu lañ leen wax.

มันบอกมันเข้ามาแลันลันวะลันละว่าคันแตกเนาะเมย์โซกิเซนี่นี่นี่นี่นี่นี่แล้วเลยเอฟเฟกต์ดังนั้นนี่ละละโมละโมสิเซนยอนสิเซเนกาลบัานนั้นได้ยี่อัมดรัว